li taxoon ñu yëkkati ko ci ñetti weer yi ba ñeenti weer mooy fexe ba entreprise yi ci tourisme ak transport aérien ba duñu loru ba le ndax loolu mën na nekk ñaareel bi fexe ba ña fay liggéey nekk seen expert maanaam seen borom xam-xam seen xam-xam màcc ci liggéeyu transport aérien te nga xam dafa jafe ñu fexe ba ñooñu aussi ñu mën leen a denc boo Air Sénégal mu ngi dem di Lolou suko ko def c'est parce que ñetti téeméeri doomu Sénégal dafay liggéey sen euh, salaire ak sen payeur weer bu nekk assuré nañ ko te def moy le fonds force Covid bo jëlé tay kurel yi nga xamné ñom lañ tuddé euh, société rattachée muy aviation civile te nga xamné lepp luy saytu walu karangé ci walu avion aviation ñom ñokoy koy saytu muy anasim muy AIBD muy ADS ñom tamit fexé nañu ba jamono jooju aussi sen travailleurs yi maanaam liggéeykat ya nga xam ne seen xam-xam dafa jafe ñu mën leen a téye ba demuñu ndax kat nee naa ko sànq ci nasaraan boo jëlee tey inspecteur boo xam ne day inspecté aéroport di inspecté avion boo ko ñàkkee balaa nga ko am amati day jafe te ñooñu pour ñu mënoon leen a téye baaxoon na seen payeur ñu mën koo garantir ci jamono ji nga xam ne moo doon jamono mbas mi. loolu tamit gis ngeen ne force fond Covid fond bi moo ñu may ñu def ko boo jëlee également hôtel yi gis nga barke démb hôtel yi fii ci Saly fii également ci Cap Skirring nañu ubbi. Ce bu ko c'est parce que un outil de travail maanaam infrastructure maanaam bërëbu mais aussi ba redémarrer activité ba ñu comme nous mu avant. loolu c'est parce que fonds bi nga le président Macky Sall da ko taxawal jël lu mat milliards ko ci tourisme transport aérien moo jàppale entreprise yooyu ba nga xam ne loruwuñu waaye aussi seen liggéeykat yi ñu mën leen a téye ba fii ñu toll tey mën nañu nag relance dëgg la nag jafe jafe-jafe jeexagul loolu waral gis ngeen barki démb am na conseil présidentiel boo xam ne njiitu réew jiital euh, taxawal na ko ci wàllu relance économique ak ministère de l'économie ci relance boobu ñun incha allah ci ministère du tourisme et transport aérien dinañ lii di crédit hôtelier ak crédit transport aérien dañ leen dooleel ba ñu mën a gën a jàppale entreprise yooyu jàppale ci ña nga xamné sen relance euh, de yex parce que transport aérien xam nga tay ba avion waccé bala muy fay fi ak ñaari weer la donc relance bi day yex donc fond du transport aérien crédit transport aérien na nek jumtukaay kay bo xamné dañ koy jëfëndiko pour toujours jàppale entreprise sen seen euh, outil de travail mais aussi également jàppale leen ba sen ay kat ñu mën leen a téye ndax kat ci loolu lay danelé bo xolé mbass mi dafa indi euh, manam xëccoo boo xam ne ak wujje boo xam ne ci entreprise yi. képp ko xam ne teewoo say entreprise maanaam sa liggéeykat yu gën a baax sa liggéeykat dëgëraloo sa entreprise boo deful ndànk say ay adversaire ou say concurrent ou say adversaire nañ la mën a sonal donc loolu nekk na loo xam ne fond bi nga xam ne fond Covid am na ci solo lool donc maa ngi sant bu baax a baax encore une fois le général ak équipe am ak liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def jox nañ leen nag lépp luy bataaxel te incha allah jàpp nañu ne également bilan de parcours bi ñu def ministère du tourisme et transport aérien aussi mu ngi seen wet pour lépp loo xam ne soxla nañ ko pour gën a xóotal liggéey bi rek ñu def ko ci anam ñu mucc ayib